I'm ill. I'm ill. damay tëdd ba night time. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen dalalaat si émission bu mag bi ak si télé bu mag bi you know di leen wax ni rek fan yee passé xaw nañ gëj def émission parce que. li fi jaar dafa jot a bëri bëri circonstances yu taxoon ñu xawoon nekk si benn affaire tere woon émission yi am mais bon comme nuñ leen ko waxee rek Tamba TV moo fi nekk et puis émission yi du arrêté du bii kese bëri na émission yi jàll Tamba TV xam nga di wax abonné yi gars yi comme d'habitude amul bàyyi di like di poster di partage vidéo yi di leen wane affaire Tamba TV affaire Tamba mais affaire Sénégal yëpp la affaire àdduna yëpp la fu waay toll si àdduna gis sa bopp si Tamba TV. du émission bi émission boo seetaan rek gis si Tamba gis sa gis si Sénégal moo tax ça va à l'intérêt de tout le monde gars yi jàpp si télé bi xam ni télé ñëpp la quoi. yee tey nag yee émission bi dafay hip hop ba tey parce que du génn cadre hip hop for life day hip hop ba tey mais hip hop mooy li ñu jotoon waxtaan récemment ak ak ak ak directeur centre culturel. hip hop c'est bien beau concert yi c'est bien beau rappeurs yi c'est bien beau ñu def ay ngandi funk dem scène def concert rap de mbedd. Lolo, dafa dafa loolu mooy base hip hop mais léegi hip hop dafa évoluer dafa jot hip hop mooy li wax gars dafa jot rappeurs yi sol costume cravate dafa jot ñoo am ay jersey Sénégal dafa jot ñoo am ay jersey si si concept boobu nag dafa am ay grand yu comprendre dilbi, bi am ay grand yu comprendre concept bi ñu teg ay affaire yoo xam dafa méngoog hip hop tey fu mu toll su ma su ma waxee loolu c'est xel day dem carrément si structure yu bëri yu commencé juddu mais notamment sunu attention dafa am lu koy capté mooy mooy benn benn structure bu tudd doomu Tamba pur doomu Tamba pur moom ça veut ça veut tout dire day résumer lépp mais rek tey contentement lañ am di dalal grand bi xaadim xaadim sax doo xam sant bi mais xaadim doomu Tamba pur ngay xam quoi sànq maa ko koy wax ñu am privilège mu mag di dalal xarim doomu Tamba xarim ñu ngi lay ziar grand. waaw seigneur ñu ngi lay ziar. Mm. euh di remercier wa Tamba TV ñep mm. ci invitation bi. Mm. et aussi c'est un grand plaisir aussi wa doomu Tamba puis recevoir Tamba TV. parce que ñun lépp lu ñuy liggéey tamit. té amuñ ci visibilité donc dañuy né rek euh, c'est dess na lu bëri. donc di jaajëfal euh, équipe doomu Tamba Pire yëpp. Mm-hmm. ak wa Tamba yëpp ci émission bi. Mm-hmm. ok merci beaucoup. jajeuf grand sama sama. sama sama sama côté gauche maa ngi am grand bi Lamine Bassène muy coordonnateur structure doomu Tamba fiir

xam naa peut-être fii ngi la am chance gis mais après baru dina dugg si biir won leen lu fi nekk yëpp parce que bon c'est rafet na trop ah bu dee rafet rek rafet na mais qualitativement tamit y a y a beaucoup de qualité et puis am na affaire yu bëri yu ñu si apprécié grand fan la idée doomu Tamba Pur jóge idée bi d'abord ok encore di la remercier waat euh, doomu Tamba Pur mi ngi débuté ci xa entertainment parce que euh, au début. Mm. c'était restreint. Mm. donc ci ci ci xa entertainment lay yemoon. Mm. ñuy def ay activités yu ndaw. Mm-hmm. donc dem ba xam ni vraiment yematul ci xa entertainment. Mm-hmm. waa doomu Tamba bi waa doomu Tamba ñëpp dugal nañ ci seen loxo. Mm-hmm. ñu gën a ouvrir ko. boole ci doomu Tamba yi parce que ñu xa entertainment ñu mu doon demal. waa doomu Tamba lañ. donc pourquoi pas ñu teg xa entertainment ñu fële. Euh, wuyoo ci doomu Tamba pur maanaam képp ko koo xam ne tu es fier d'être doomu Tamba. xam carrément Tamba moo la tax a jug. lépp looy def Tamba mooy tax nga ciy def nga ciy daw. ñu tuddee ko doomu Tamba Pire. nekk di yëngu ci différents domaines. pas non seulement dans le domaine mais si domaine euh, de l'élevage. agriculture lépp tout donc. Euh, am ci ñaari volet muy leadership ak divertissement qui parle de leadership parle de travail qui parle de divertissement parle de loisirs, parle de hip-hop, parle de la, culture mhm. de Tamba, parle des artistes de mhm. Tamba. Donc, le mhm. Tamba il faut le juger. et puis aussi nous avons un objectif c'est euh, comment euh, la valorisation de la région de Tamba au niveau culturel. une euh, innovation. y a un Tamba puis ci pas on veut innover. les différents domaines. dans la région de Tamba. mais grand ba nga une idée xaa entertainment bi mu ngi doon dox bien vrai mais nga gis doomu Tamba yi dugal si seen loxo nga ne pourquoi pas ñu teg fële xaa entertainment bi créé lu ñuy wax doomu Tamba pur mais bu mu ñëwee sa xel tak ban impression nga njëkk am avant lii di taxaw idée bi ñëw na sa bopp am na ñoo ko partagé mais ban idée moo njëkk capté sa attention ba nga ne dañuy teg fële xaa entertainment bon idée bu taxoon tamit ñu ñu ñu teg Xa Anta tamit fële. est parce que daam ci ñu doon yëngu. Mm. donc avec euh, mon coordonnateur. Lamine mm. parce que lépp lu may def tamit. Mm. du ma ko bàyyi ci ginnaaw. man su ma nekkul Tamba parce que ñun yëpp dañuy liggéey ma nekkul Tamba moom mooy nekk ak yi. donc ñu doon yëngu ci lu bëri. ñu def ay vacances show. ay Oscar lañ ko Oscar vacances la ko gars yi xamee. mais ñu ko tuddee vacances show. di ci yëngu di di di jël suñu propre moyen. di di ko investir ci booy. gis ni que vraiment ça allait de l'avant mm. donc jugee ci loolu tamit nekk ci mosquée yi ak ñeneen affaires yi mm. di réparer tout ça des des des des trucs dans les mosquées mm. di créer ay ndogu spécial affaires yooyu dem nax ba finalement ñu ñu tourné ci benn euh, doo boo xam ñun comme doomu Tamba lañ. Mm. donc bu ñu gisee. ñuy xas Tamba. donc mm. ñun dañuy xool pourquoi. le mm. pourquoi. et ce pourquoi là c' était dans le domaine culturel. parce que dañ doon toog man euh, franchement lu ma ci poussé woon. dama doon toog di dégg. bon artiste bi ñëw na Tamba mais mi ngi doon sabote Tamba ci côté. sonorisation wala leneen ak leneen. Mm-hmm. ñu ne pourquoi pas ñun doomu Tamba lañ. te ñun ci côté boobu la ñuy yëngu. ñu woon leen que ñun waa doomu Tamba. on a te mun nañ téye suñu suñu suñu suñuy loxo. Mm-hmm. nekk benn. Mm-hmm. bu am luñ ci mën a aboutir am na tuur boobu dañ koy effacer au niveau mm-hmm. national. donc loolu moo taxaw. mais mais grand tey ku gis structure bi nu mu demee ak nu mu taxawee nga dugg si biir gis matos yi fa nekk gis lépp à peu bu ñuy évaluer la ku metti na wala mettiwul d' abord. <laughs> waaw ku moom dañuy ne rek métti na moom. Ah. comme euh, mën naa ne. soo ko évaluer à peu près ça donne <laughs> non garaawul moom. ku dugg rek nga xam ne ku gis. xam nga fii 32000 xam nga matériel yi dafa ko 25000. dafa ko waaw loolu moom lu leer la. moo tax ma ne ku eh. bopp estimation. sans wax la ko. waaw que mais à peu près le coût quoi à peu près. bon ñu bàyyi rek gars bu ñëwee bu ñu ko xoolee bu ñu apprécier matos yi. non non non ku ñëw ah. di nga ah, nii moom moo doon gérer bagage. ok ok Lamine maa ngi lay siyaar. waaw ñoo ngi dellu siyaar le coût à peu près l'initiative d'abord. bon initiative le fait que nous soyons mm. je pense que Khadim sommes. parce que nous, euh, mm. très ambitieux. Mm. Euh, les lu ñu soxal ni Tamba donc nous ku donc nous euh, bon nous aussi les nga ay nit yoo xam ne ñoo bokk ambition. Mhm. ñoo ko sëg. Mhm. donc boo gisee buñ ne doomu Tamba Pur. Mhm. képp ku ci ku ñëw fekk si ñu rek. da nga fekk ne yow sa idéo ak suñu bos ñu correspondre. donc loolu moo tax tey vraiment initiative bi ñu teg ko. pour jëmale Tamba kanam. ci facette yëpp wax na ko da ngay jël côté culture bi. dañuy nekk si côté social. mais également du ñu bàyyi nit ñi bu ñu euh, boo demee liggéey ba nga sonn. ñeneen nekk si culture bi vraiment di développer tey euh, boo xoolee bu ñu ne Euh, région Carrefour la li ko wër donc li fi nek rek ci brassage ethnique donc la culture beaucoup développé dafa dafa jaadu euh, lenen aussi ñu ne nit ñi bu liggéey ba paré war nañ dem dalu war na am ay cadre yi nga xamné tay Tamba war nako am ku fi ñëw mm. dana la Tamba ya rien amu jëmukaay amu jëmukaay amu dara donc loolu yëpp tey moo tax tey ñu initier lu mel nii mm. di souder jeunesse Tamba boo xoolee quartier yëpp dañu retrouver wu fii nii donc c' est vraiment ce qui a amené initiative bi nga xam ne mën développé mm. voilà maintenant euh, pour revenir si question bi mooy coût bi. Euh, nii ni nii parewuñu d' abord pour euh, joxe exactement la coût parce que ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci nu mu tudd investissement bi jeexagul. ok donc démarré nañ ko vraiment di fi jot a dugg bare na. yéen a ngi xool léegi bi ngeen ñëwee ci ginnaaw am na nekk si ginnaaw nii ñu ngi nekk di ko defal. nii mm. léegi lañ ko léegi mm. lañ ko placé. Mm. pareegul donc bu ñu demee nag ba pare. dinañ ko dinañ mën a tënk. ñi leen exactement lii moo fi nekk. donc moo tax toll nii ñun dañuy bëgg financement grand financement pour fu mu jógee. koppar weccit bi cit bi. <laughs> waaw weccit bi hmm. mais en fait de toute façon dinañ leen wax euh c'est ñu ay particulier c'est ñu ay banque lebuñu xaalis amuñu ben financement là on vous le dit. mais équipe bi. attends j'ai venir attends grand attends attends. waaw financement yi génn ci town bi yépp yeen ngeen tek structure bu melni yeen laalu leen ben financement. amuñu ben financement donc là on on le dit mais quand même euh, équipe c'est vrai. buñu mais grand li nga wax ni bizarre na. appel non bizarre pas dans la mesure où nous sommes lañu nek avons dañuy gis ñu jot ay financement pour nous, ñun bu un financement acteurs culturels yi war nañ ko sentir quoi. Mhm. je pense bien. Mhm. mais si tel n'est pas le cas ay gars ont jotul financement def li mhm. autorités yi culture au niveau de la région ils nañ li gis nañ ko. Ah, mais ils ont di yee xam

li ñuy wax Oscar des vacances ñun ñu tuddee ko vacances show Tambacounda bi mu nekkee Tambacounda euh, doomu Tamba pur rek moo am sañ-sañ toog jël cachet bu 1 million 200 teg ko sur la mu ne booy kaa leen fecc kaa leen foo fecc leen woy leen théâtre leen bu ngeen paree ku gagné sa cachet ngi nii ñëkkati 1 million 200 ñu teg ko sur la ñu ne leen lii la. bi ñu paree vacances show boobu noonu amul kenn ku ñëw taxaw ne fay leen ñu bor par contre bi ñu koy teg dem nañ seeti ku nekk. Mhm. mais koo dem seeti da lay jéem a dawloo. mais ñun nag que ay jeunes lañ ñu takk seen ndigg di liggéey di yëngatu ci lu bare donc boo xoolee fii tey euh, bon kenn ku si nekk mi ngi sa domaine Xaadim mi ngi liggéey fi muy liggéey maa ngi si projet yi am na ñoo xam ne si projet yi nekkuñu fii donc mais comme li ma wax ñoo ànd donc ñooñu war nañu mën a teg dara sans leneen ci keneen ku ñu fekk si après ñu jëlan mais grand c'est-à-dire yéen kenn financé leen kenn lu fi nekk yëpp amul benn financement bu bu ko bu lal très bien loolu mooy benn mhm. local bi mhm. yéen a koy fayal seen bopp mhm. su ma ne kenn accompagné ñu mooy wane ne kenn defaluñu dara sama waay. Ah. <laughs> donc c'est ça dafay dafay dafay bizarre ah. dafay bizarre dafay bizarre parce que ñun ñu ngi si si si monde culturel bi ñu ngi gis ay financement yuy génn ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg ñu ngi jot sax ñun peut-être si ay financement mm-hmm. mais dafa dafa jaadu nit bu góor góorgóorloo ba teg lii ba mu koy teg dimbali woo ko mais am na xaalis bu bi nekk pour lii la en fait c'est pour ça du question yéen da ngeen war a dem si ñoom mais lii leen li ngeen moom la en fait ñun lu ñu bokk la ñun ñëpp ñu yëngu si secteur culturel bi lu ñu moom la xaalis boobu il faut ngeen dem jël ko parce que lii du coût mille 32000 deful lii ngeen soyons très très très honnête Karim comme que yéen amuleen leen financement amu leen dara nan la structure bi di doxee ba mun a subvenir si yenn besoin mi di fay courant di fay ndox ñi fi nekk ñuy laal dara nu muy demee. boo comme ni ma la ko waxee rek nous on n'a pas euh, historique bi dafa gudd na. parce mm. que man ak euh, Lamine c'est depuis 2012. 2012 mhm. a commencé à investir. Mhm. donc on a fait des trucs à l'université, de Cheikh Anta Diop. Mhm. Mm, def na am na lu fa mais l'autre c'était n'était pas dans le cadre culturel. c'était dans notre cadre. Nous nañ Tamba aussi bon yàlla ubbi suñu wërsëg ku nekk di liggéey di dagg sa wërsëg. donc luñ ci am. yemalewuñu ko ci ñun rek suñu bopp cest à dire quelqu'un qui réfléchit. si tu avais des ambitions avant amoon nga lu nga comme projet. t'as pas les moyens pour le réaliser. Il y a boo demee boo am quelques moyens. Mhm. la première chose à faire. Mhm. da ngay essayer réaliser sa rêve mhm. donc ñii mun nañ ñun mun nañ ne lii notre rêve. c' notre rêve donc ñun on avait on avait la. Eh, mais mais mais mais attention un rêve qui peut qui peut coûter très cher hein. ah. waaw mais c'est ça c'est ça. un rêve qui peut qui peut coûter très cher. kuy kuy wax doomu Tamba. da se passe euh, que euh, euh, waroo kuy investir entrepreneur sax laay wax. entrepreneur mais grand investissement après da ngay xaar retour hein. ah. waaw mais c'est ça c'est ça actuellement moo tax ma la un bon entrepreneur du découragé. du découragé parce que. récemment rek am na lu ñu jotoon teg donc boo bu dee t'es pas un bon entrepreneur da ngay découragé. dinañ ci ñëw mais mais mais je veux dire coût nan ngeen di def pour fay ndox fay courant fay locaux yi. <laughs> fay locaux yi c'est c'est c'est ça quoi nan nan ngeen di def pour boobu parce que amu leen amu leen financement amu leen dara. waaw mu euh, ci biir wax Xaadim wax na la ko suñuy activité limité wul rek si maison de la culture bii nii. Hmm. souvent yaa ngi xool. Mm. Euh, da ngay jéeg jékki nga toog nga gis ay affiches yu daw. ñeen mm. la doomu Tamba Pur mi ngi si yenn activité mm. donc am na beneen activité boo xam ne day yëngut si côté maraîchage bi. élevage ainsi de suite. donc de l'autre côté ñu ngi koy développé. Mm-hmm. donc là aussi. Euh, ñun les membres kenn ku ci nekk am na si li ngay yëngatu. comme ni ma ko waxee sànq cest dire comme ni Mega. ko rek. mais grand mais grand mais grand est ce que yéen est ce que du yéen da ngeen di liggéey. seen i xaalis ngeen di ngeen di taxawalee structure bi seen xaalis mooy nekk di fay structure bi. pour le moment. loolu moo nekk di am moo nekk mais. loolu moo nekk di am instant moo nekk di am instant bi loolu la parce que investissement bi. ñun investir ñu woon nekkul loo xam ne dañ ko teg rek. Mhm. pour suba mhm. ñu fayee ko. Mhm. ñun li ñuy def nii. fayeeku bi du léegi de. souvent dama koy wax gars yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal man la kuy découragé ak ñun. képp koo xam da nga ci sa doo mhm. pour le moment dañuy mais on sait que yaa ngi wax léegi financement yaa ngi ainsi de suite les gens bu ñu ba gis c'est le concret. Mhm. moo fi mhm. nga mais ils vont venir envers nous commencé nañ ko ça parce que nit ñaa commencé les portes. bon di di di di jël ay renseignements di donc là ça va venir. mais instant bii nii duñ dem ci kenn on attend mhm. ba ñu consolider li fi nekk mhm. mais tamit charge yi fi nekk mhm. donc euh, Dieu est grand que yàlla dimbali nañu que ne euh, li fi nekk di dox dina ko mën a gérer ba affaire bi commencé jur fii dara moo fi nekk luy jur xaalis muy studio bi moom nga gis moom laa gis studio bi luy jur xaalis ah très bien mais studio bi est ce que mu ngi fonctionner commencé jur parce que xam nañ enregistrement Tamba yi francs la 7 000 ah dépassé wul loolu parce que loolu loolu la loolu mais quand même euh, ay orientation la rek.

ñuy def ba teg actuellement li fi nekk. Mhm. donc dina gérer d' abord fii ak moom mun naa ne at si kanam. daa am beneen activité buy couvrir. maison bi maison bi si. maison dom Tamba benen activité bo xamné activité dom Tamba parce que dom Tamba Pire amna sonorisation. amna na ay mm. base yu muy loué. Mm. décorative donc il y' a des comme nous, quoi est waxee mm. ñun amnañ ferme. am une ferme d'élevage donc on fait de l'élevage on fait de l'agronomie. donc dañuy dañuy dañuy béy ay koom-koom donc qui parle de ça parle de l'agronomie. agronomie. dañuy def élevage donc ferme la ñu en quelque sorte. tu vois. Nous ngi ferme. ñoo ngi yor suñu sonorisation ñu ñuy duwee. ñoo ngi suñu ñu donc en même temps aussi nous une suñu personne de bonne volonté ñu nekk de soutenir. ci suuf on n'a pas besoin de dire leur nom. donc tout ça. personnel bi fii voilà personnel bi fii ils sont nombre de combien. <laughs> mais gars yow da nga bëgg dugg suñu biir structure bi fu mu toll nii génne ñu quoi. <laughs> mais personnel bi ils sont nombre de combien. beneen émission la ñuy bàyyi DG moom dina ñëw DG dina ñëw toog yéen voilà <laughs> après lépp lu jëm ci côté kii bi xamna naa. waaw DG mais Barou personnel bi sont combien. non ñun accès lañ DG bi mom mi ngi si mi ngi falé mom ok moom prochain prochain émission. émission dina ñëw mu jox nañ côté structure bi ak affaire yi. ok légui ñu laal un peu dans dans dans le monde du hip hop gis nañ studio bi mais est-ce que tay doomu Tamba Pur am na ay artistes mu jël casé leen ñu nekk si labelu doomu Tamba Pur di liggéey est-ce que yaana am na ay artistes comme kan bon actuellement euh, on travaille avec une moom moom on peut projet bi moom moom ñun ak ñoom moom ñoo ko tegandoo hmm. muy Dina MC je pense que moom bu ma wax waxu Dina Karim bul ma wax waxu Dina wax ma yeneen rappeur waaw waaw non rappeur yaa ngi ñëw fii maison c'est maison comme kii parle doomu Tamba pur rappeurs yi naa leen studio bees la ñuy bañ dañuy ñëw mais est-ce que doomu Tamba pur jël La la maison de culture est-ce que jël na ay artistes casé comme nous on n'a pas encore on n'a pas fait cette étape étape hmm. je pense que nous ci expérience parce que hmm. eh, eh, eh, comment euh, domaine donc c'est pourquoi structuré hmm. domaine peut-être domaine xam euh, domaine côté hip hop bi tamit koy gérer spécialement ci dina kon artiste parce que moom dina ma wax la coow Sénégal yëpp. Ah. comme que fii la nekk si kër gi. yéen ay kilifam Sénégal yëpp nee nañ dina du génne projet du génnee EP du génnee dara. récemment j'étais à Mbour ak ay moromam yu mbokk loon flow up ñoo xam ne ni ñoo bokkoon compétition bi après ñu nekk ay fansam ba ñu toogee xam nga lu ñu ma doon wax dinaa kele sam problème yéen ay kilifam. waaw eggee naa leen ko. waaw dara xam nga xam nga bon peut ñoom vision. Euh, bi dinaa am peut être amuñu ko. de toute façon ñëw na vision vision dinaa dafa yàgg de. ba tey mu ngi visé. d' accord mais 2015 ba léegi xam nga mi ngi visé. mais dinaa xamul bëgg a wax si njëkk ak teraanga quoi moo tax ma ko koy tegalee nii. d' ah. may ko tuuti mu ngi ci kër gi mi ngi doomu Tamba Pire. mu ngi ci kër gi. ah biiraale yàggutul dara di nga ko dégg. biiraale fii ak ay 3 mois su génneewul gars yi suñuy clash naan nañ leen clash à la grand yéen ñaar. jël <laughs> ngeen responsabilité yooyu. en fait dinaa mi ngi ci affaire hmm. waaw. doomu Tamba Pire dafa mat quoi. doomu Tamba Pire moom pour dire vrai boo xoolee ossature bi dangay am yaakaar quoi parce que da ngay gis dina gis xob. Mhm. un monsieur que tout le monde respecte beaucoup. kii laa beaucoup fait pour le hip hop Tamba. beaucoup beaucoup beaucoup fait grand bi moom ak Sidi ay ñoom Mes ñoom Gibson grand ils sont beaucoup beaucoup fait moo tax grand bi chaque fois su ma gisee loolu laa ko wax ma ne ko il a il respect de tout le monde. suis ko ma structure bi suis laaj que ko mu ne ma la direction artistique Oui, c'est un grand monsieur. Il koy ñu un ñu grand élément pour la Mais grand si suñu suñu suñu suñu Tamba Tamba délinquance juvénile on en parle tous les jours tous les jours tous les jours doomu Tamba nan la délinquance jeunesse ils sont trop accro à la drogue pour dire vrai trop accro à la drogue Il y a un temps Tamba Pur di taxawee si bon comme nous le croyons, doomu Tamba Pire ci leadership lay dox. yow je pense que lu ngay laal ni côté leadership la. Hmm. parce que euh, boo gisee loolu yëpp am. Hmm. c' parce que y' a manque d' emploi. Hmm. xam nga manque d' emploi mun na accompagner lu bëri. mun mu def lu bëri. parce que y' a y' a une ñu fi nekk boo toog ak ñoom mentalement nga waxtaan ak ñoom danañ la wax carrément lan moo leen ci dugal. c' est comme délinquance juvénile donc mun naa ne d' part. manque de main d'œuvre moo koy indi main d'œuvre parce que ñun ñëpp xam nañ si dara. Hmm. donc ñu woon mais am na si ay jeunes yoo xam ne amuñu âge sax peut-être. def métier. waaw nga gis leen si yenn délinquance yu yu yu extraordinaire yoo xam ne nii tey du seen âge. waaw tey doomu Tamba Pire yan tànk la si taxawee. côté boobu xam nga accompagnement hmm. lépp loo gis ak accompagnement la. Hmm. tey. Euh, structure bi nu muy demee doomu Tamba pur boo sans sànq toujours rek dañuy dañuy dañuy am plaisir de revenir si yenn activité yi nga xam ne dañ koy def mm. euh, notamment les vacances show mm. am bon depuis daaw nag yàlla dafa daf ñu nattu teguñu ko mm. donc boo xoolee activité yoyu dañ ko doon def di regrouper jeunes yi bu ñu regrouper à travers regroupement boobu noonu day am ay sensibilisation thèmes yooyu yëpp dañ koy aborder donc xalé yi dinañ xamné amna benen occupation bo xamné amna am loolu nga passer sa temps di utiliser drogue di def ay affaire yo xamné vraiment c'est de contre nature ci dëkk bi mm-hmm. donc dana leen doon permettre ñu wu di ànd di toog di bok ay idéaux di ànd mm-hmm. donc là ñun si côté boobu noonu dañ ci dañ ci def ay activités de sensibilisation yu bare mm-hmm. donc déjà aussi euh, on a eu la chance tay euh, il y a pas mal de CDJ. Bon, mhm. les CDJ, moi, conseil communal de jeunesse, Ils mhm. une woo. Mhm. ñu. c'est une activité pour nous ñu ñëw nous, ci. bu côté sensibilisation nous tamit ñun Nous Nous nous, bu baax. nous ak vraiment lan moy gëm sa bop wax leen lan xaar ci jeunesse. nekkul dem tok nekk ci délinquance bi nan ainsi de suite donc dañ leen di indi. Mm. indiwaat encore. Mm. voilà donc lolu mom tànk yooyu ñun ni ngi koy dox bu baax a baax euh, pour vraiment xeex phénomène bobu non. Mm. Mm-hmm. mais kon euh, grand su ma su ma y a un programme bien défini pour la jeunesse. voilà notamment pour les tout petits. Mm-hmm. Ah. de toute façon euh, comme on vous dit hein, grand instant bii nii nañ ñu may direct, rek ñu tek ba ñu

élément clé du Tamba pure tout ce qui est programme de jeunesse accompagné génie, yi ci ay feu de camp ainsi de suite mon mot est initié. Mm. donc daaw amna buñ ci ñu si mm. Covid bi yàqal ñu ko mm. ren ñëw teg ba yaakaar ne dañuy ñëw pour euh, réaliser ko affaire yi ñëwaat encore ak benen vagam donc là buñu paré paree ba instant gars yi dinañ xam doomu Tamba Pur yemuñu nag si on a beaucoup d'activités. ok beaucoup d'activités activités xarim suñu ñëwee ci côté organisation Tambapur ñu événements est-ce qu'ils prennent en considération la valeur des artistes de la région parce que artistes souvent parce qu'ils ne sont pas pris en considération c'est-à-dire dañuy des artistes, fay ko 4 millions nous, ont 10 000 est-ce que Tamba Tambapur a pris en considération ce ce ce, petit euh, problème là voilà euh, question monnaie, parce que nous, sommes suñu but, Le ne principal pas le la hmm. parce que Tambapur c'est une première mission moi valoriser artiste tambay mm. mais aussi c'est un combat qui commence à s'introduire. Nous sommes tous di jours au lendemain rek. Mm. fay artiste bi ay cachet faut faut public bi d'abord. Mm. xam artiste bi. Tamba mun la majeure partie des artistes. public bi. am ñu mm-hmm. donc il faut que ñu def mission d'abord ba nous mot ñu artiste caché artistes euh, et pour cela il faut artistes mën ñu soutenir ci côté parce que si nous programme mm. on doit faire des frais déplacement sonorisation bi lumière bi staff bi fay tout ça Vous mm. comprenez comprendre mm. donc c'est des frais après te loolu bu ñu ñu defee entrée peut-être entrée Tamba bu ëppee ba ëpp 2000 la porte 3000 te la majeure partie 2000 bi la mhm. yaay comprendre donc mhm. ci loolu artiste bi bu ñu ko wooyee mhm. ñu fay ko peut-être déplacement mu ñëw wa à fur mesure bu demee ba Tamba yëpp am artiste bi ñun dinañ am audace bi bi dem stade ba tëggal waa Tamba rek programme bu boobaa artiste bi dañ koy woo nee ko papier bàyyi ni sa cachet wax ko ñu waxaale bu ñu bu ñu waxtaanee ba juboo ñu fay ko cachet moom parce que xam nañ bu ñu ko yóbbee terrain. Mhm. bu ñu tegee concert boobu. Mhm. day fees parce que gars yi dund nañ ko. xam nañ artiste bi. Mhm. donc mun naa ne seen une interlocution. foog artiste bi may ñu d'abord. ñu ko génnee. les médias télé Tamba da nga ko rus wax nee leen booy itam ñu job qualitativement très bien te du loolu sax déjà nañ gëm seen bopp. waxoon naa ko si beneen plateau télé. xam nga souvent on a on a l'habitude dañ koy dégg ah, fu nekk waaye artiste Dakar day ñëw. affaire yi fees doomu tàmbaay bu ñëwee du fees. Mhm. wala nit ñi duñ leen wuy sax. Mhm. mais gis nga mënoo nekk ci dëkk paré wo pour sa dëkk consommer la. Mhm. déjà. ci ay euh, espace euh, yoo xam ne plein air la conseil yi nga kii. donc boo nangu boo ñëwul nga wone sa bopp nga nit ñi xam li nit ñi dañ ko bëgg hip hop gars yi bëgg nañ ko dañ koy cons. ñun je me rappelle conseil yi mujj am. ñun toog nañ fi concert Terra Avenir ba 5 heures du matin. da ngay ñëw toog nga xëy lendemain war a dem liggéey war a affaire mais dala koy jaral nga toog. mais nag euh, lan la yow yaay xeex loolu ci sa dëkk nit ñi xam la nga jox leen lu neex. nga imposer wu sa dëkk. Mm-hmm. bu subaa nga woote fenn foo xam ne espace bu fermé la les gens vont venir mais fekk takkuñu liggéey d' abord aussi jege population bi. Mm-hmm. les gens. duñ duñ duñ duñ. Aziz Tambay loolu la ñuy jooy ah. dañuy woo Dakar fay la 4 millions ñu woo la jox la 15000. xaadim wax na grand bi wax na grand li ngeen di wax nii day des archive la mais euh, grand qu'en est-il si concert u Dieyla bi réellement c'est quoi le quoi qui a fait euh, le plus grand problème ci concert Dieyla euh, bi mm. donc ñun pare nañu woon ah, man franchement pare nañu woon te mm. pas côté financièrement ou côté matériel mm. donc tegoon nañ yëpp sur place donc ku xamoon doomu Tamba Pire jarul ñu lay wax ndax pare na wala parewul parce que on avait une caravane à la veille. Hmm. caravane bu mag lañ def Tamba te loolu caravane boobu xaalis a ko def. Hmm. donc bu ñu toogee ba jour yi ne Dieyla du ñëwaat c'est qu'on a eu des des yoo xam ne donc ça va directement à l'annulation du concert. donc voilà Dieyla moo amoon benn empêchement donc euh, vague. Euh, nee ñu mënul ñëw jouer concert bi donc parce que euh, daa am cas bu mu am tu vois ñu annulé le bi loolu rek la moom sinon pas côté financier. Euh, mais Dieyla est-ce que li ngeen jot financer, financé léegi nan ngeen def ak staff Dieyla. <laughs> coproduction la woon na coproduction lañ def ak Dieyla donc c'était une coproduction bu ñëwee bu ñu defoon événement bi ba pare ci lay ku nekk di am bosam baaram ci ci concert bi. mais c'est une activité en suspens c'est une activité en suspens comme que. mais mais mais mais grand attends. Dieyla mhm. ñëwul mais il y avait des artistes de Tamba qui ont fait y avait Dina. pourquoi vous n'avez pas pris <laughs> le, truc là avec avec avec avec avec Dina MC. pourquoi pourquoi le choix n'était pas de prendre Dina ñu dem defi concert pourquoi vous n'avez pas fait ça. bon euh, là je vais répondre directement parce que euh, c'est des propositions mais peut-être euh, Dina Dina au long pour jël concert bi non lu y day am par rapport à ça. là on est quand même même. peut-être pour def concert c'est proposition yi judduna mhm. biñu démé tok ba dernière minute. Diey euh, eu xamal nañu carrément bon ay empêchement mhm. parce que bon vraiment côté dafa mënul ñëw. Mhm. empêchement donc là euh, ñun woté nañ réunion d'urgence nañ parce que tamit buñu tégon concert c'était juste pour gëna yobbu euh comment dire encore parce que dinaa comme li wax dañ ko rek di préparé ñu ngi koy préparé ci lu bare mom aussi peut-être du yobbu boppam ci erreur peut-être jour boobu noonu euh, il n'était pas prêt pour après mu mën yobbu concert bi parce que c'était lo xamé dafa subit mhm. ñëw na rek daanu ci ko mhm. ben jour à moins de 3 heures de temps bon moins de 8 heures de temps concert bi mhm. ñu ne ko sawaay kii n'y yow da ngay gérer donc là fallait que mu préparer wat leen lu bare donc là il n'était pas prêt donc là après ñun on était obligé ñu donc comme nous avons, c'est en suspens donc côté frais yi nga on ne def nañ ko. nous jënd ticket. duñ plaindre. waaw coco, staff bi. ça nañ ko gérer nañ ko voilà nañ ah, de concert non mais doomu concert pas. bi la sama <laughs> dara. <laughs> Ah. ticket nous sama diis boy koñ wóor na sama rakku Aliou Sall la bii réglé nañ ko. waa <laughs> lan mooy tey lan la doomu Tamba Pire di waaj ak yan événement ñoo nekk suñu kanam. waaw doomu Tamba Pire mi ngi waaj lu bëri ah mi ngi waaj inauguration moom donc mi ngi accompagner tamit euh, événement yi war a am décembre incha allah. Mhm. nañ weer weer nañ ko xaar daal ay surprise yu bëri daal mi ngi ñëw. dañ ko bëgg def surprise rek doomu Tamba Pire mi ngi ñëw en décembre incha allah. Lamine le programme de Tamba Pire décembre bi. waaw déjà comme ni ñu ko waxee ah ñun am nañ ay matériels yi nga xam ne disponible na déjà. donc hmm. tey képp kuy tëgg concert ragalu ñu jël sa avance boo ñëwee euh, matériels yaa ngi fii pëjëm baa ngi fii estrade tout tout mi ngi fii. léegi nag grand une minute. Mhm. problème sonorisation dañ ko am Tamba. non ragalatuñu. dinaa mën nga ma jël comme témoin télé laay non mun nga ma jël comme témoin problème sonorisation dafa am Tamba. non non du ay affaire u tooñ dafa am Tamba. non mais moom mën na concert buñ xoolal <laughs> ban concert ngeen tëggagum fii. ñun tëgg nañ wan lyrical bi te boobu moom ñëpp am nañu sono bu mot sekk moo génn. wan lyrical ak kan. Euh, naarapi bi ñoo ko waroon def mais. bu ma waxoo dañ ma teg dil foofu. <laughs> waaw mais problème mais problème sonorisation dafa am Tamba. sérieusement sérieusement dafa am Tamba réglé nañ ko. sonorisation yi fi nekk yëpp on a beaucoup essayé on a beaucoup beaucoup essayé mais baaxul. da ngay dem ba si concert bi. amoo sax retour bu baax. ñun instant ñun instant c'est sérieux la solution ñëw na andi nañ ko. donc on veut dire ragaluñu. si marketing de. non non <laughs> xam nga boo yoree bu nekk am li nga yor. nga xam li nga yor. doo ko dafa am koo xam ne juste daf ñu fekkoon keroog bi ñuy préparé Jeyla bi camp militaire. Mm. mu gis installation bi institut démb euh, guddi gi. woo na ma pratiquement lu mat ay une heure vingt minutes. Hmm. parce que mi ngi négocier nan la ñu mën a def pour accompagner ko décembre bi à Bakel Bakel la jógee hmm. matériel bi la gis hmm. fekk ñu ngi doon juste commencé installé gars yi def seen balance ainsi de suite donc vous dire que ragaluñu comme ni ñu ko waxee instant bi nii gars yi sonoo lañ doon jooy mais nañ ñëw waaye amul problème ñu ragaluñu espace bi c'est fait pour pour pour pour pour toute la région de Tamba est-ce que mun nañ fi def yeneen activité yoo xam ne ça va au dehors du hip-hop mais c'est pour la jeunesse est-ce que tey espace bi pare pour accueillir euh, bien sûr parce que culture les lu jeunes ci côté culture euh, bëgg nañ ko. Mm. éducation bi tamit. Mm. dañ ko jox doole bu baax mm-hmm. donc espace bi. c'est mm-hmm. fait pour euh, jeunesse su Tambacounda. Mm-hmm. activité daal bi nga xam ne activité bi nga vraiment c'est contre nature. bañuñu ko. bu ñu ñëwee exclusif ñu ñëw ñu échanger ñu waxtaan ci euh, ci ci contexte bi ñu xam vraiment que ne. ça rentre dans euh, le cadre bi nga xam ne vraiment dina éduquer. Mm. dina joxe ay orientation yu baax. Mm. donc là on est preneur. man am naa ay na émission boo fi bëgg di def mun mun naa ko jëlaat. après nga ñëw ñu waxtaan. damay fay <laughs> ah ñëw ñu waxtaan rek. <laughs> grand bu dee ma ñëw de. <laughs> ñëw ñu waxtaan. Bamba ñu am plaisir bu rey dalal leen fii. Mm-hmm. xam nga am plaisir bu rëy ñëw visiter fii gis ñi fi nekk xam leen xam seen pas-pas ci hip hop xam seen pas-pas si culture. ñu am plaisir bu rëy vraiment visiter fii yëpp di leen encourager bu baax parce que mosu fi am quoi initiative bi mosul am ci culture Tamba nit jël ay propre forme investir ko ci hip hop bi investir ko ci culture di xaar mosu fi am fii xam nga lu fi am bind dugal di xaar loolu am na fi ñun sax moom la def man ak dinaa def nañ ko bind dugal xaar ñu financé ñu mais jël sa jël sa jël sa

donc là bu demee ba lépp kale rek incha allah. bu paree ñu ñëwaat ñu defaat beneen ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi plateau. donc wetu tableau chérif. Mm. donc laa moom ku fi ñëw du du du réer. voilà c'est ça. grand kàddu gu mujj. waaw comme ni mu ko waxee rek euh, doomu Tamba Pire moom boo yow mii mu ñëw fii gis nga fii. ñu fi toog mm. yëpp waa doomu Tamba mm-hmm. <laughs> ñoo <laughs> ñoo fi toog donc comme ni mu ko waxee tamit. Mm-hmm. Euh, yéen waa média bi tamit ngeen jàpp mm-hmm. ci bu baax. bu ñuy inauguré tamit yéen yéen a mën a def visibilité bi. donc je pense que vous allez revenir encore ak ñeneen médiatique yi. incha allah nga ñëw jàpp ci combat ñoo ñoo rey seen bopp. donc am benn ambition mooy lii. Mm. leadership bi ak divertissement dans le cadre de Doomu Tamba fii. ngeen mm. jàpp ci bu baax. donc euh, di remercier encore staff doomu Tamba Philippe mhm. ak membre équipe doomu Tamba maintenant trop c'est un combat très dur mhm. donc parce que les nek di dem sans sans être accompagné mhm. donc du yaay du ñak nak parfois ay haut ak ba day am wa boy boy il faut toujours mettre en cause pour avoir la bonne solution bien sûr parfois ay xulo day am ay djugo am mais on a un seul but donc la fierté de la raison de Tamba donc lolu moy suñu ambition kon de le remercier Junior vraiment si invitation bi d'être nañ trop amuñu seen fay si si si gars yëpp mystique bi gars yi ñoo ko géré woon baru carré ak espagnol ñoo géré woon mystique bi combat bi maa ko doon bëre di leen jaajëfal di jaajëfal Azou Pian ah. Azou di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal ñu fi toog ñëpp one love ma I might take up at night time.